nee na comme ñi ngi yor seen dossier ku ci nekk euh, sa date de rendez-vous xam nañ ko dinañ la woo euh, fixel la ko nga dem rat euh, rapproché wu ci yeneen service yi nga xamante ni dinañ fa nekk ci yeneen hôpitaux yi yi ñu suivre nag bokk na ci Dalal Jamm Grand Yoff et autres j'en passe voilà alors autre actualité nag Birahim la te ñu ñëw ci actualité politique bi muy l'affaire Ousmane Diagne Euh, mafia kàccika mhm. ak Papito Kara pourquoi parce que nous sommes journalistes. et que li ñu leen di tuumal nag dafa am euh, rapport direct ak ñun taskatu xabaar yi mooy ni dañoo soppi ay une yenn ci ay journaux alors sa gis-gis par rapport lu nu mel donc nag seen avocat yi jàpp ni euh, li ñu leen tegagum loxo dafa diis trop ci ay ndaw yu nga xamante ni amuñu ay antécédents mosuñu def lu ñaaw et que am nañ xam-xam ba ca war également pour servir seen réew peut-être waroon nañ leen war a mën a avertir rek bàyyi ñu génn dem doxi seen soxla. ci lu jëm ci. je pense Papito Kara. Mhm. ak Ousmane Diagne. Ousmane Diagne man foofu je vais peut-être surprendre certains je suis pas d'accord sur téye bi ñu téye Ousmane Diagne. lu tax du tout pour man jaay doole la wut prétexte la pour euh, wàññi doole benn association wala benn kuréel wala ay nit ñoo xamee ni dafa am benn objectif bu ñu am peut-être ànd ci ak seen leader euh, ci. Pastef muy Ousmane Sonko. Mm. Ousmane Diagne qu'est-ce qu'il a fait ce que toi tu fais ce que moi je capturer fenn lenn dugal ko sa page Facebook wala sa WhatsApp def ci ay smiley reetaan commentaire oo waxoo ne yow la ko da ko jëlee fenn partagé ko dañ ko partagé feneen mais lu tax jëluñu ñi partagé image yooyu yëpp dugal leen ci kaso bi pourquoi cibler une personne et surtout ci liñ jot ci xibaar c'est le procureur qui s'est autosaisi ci kaam hmm. waay waay procureur am na leen loo mën a autosaisir ci lu jëm ci internet bi ñuy wax ni ñaata nit lañ fi nekk chaque jour ñu saaga seen pap saaga seen yaay ñaata procureur waru xaar Birahim Touré porter plainte parce que euh, saaga nañ ma xupp nañ ma d'accord tu xaar man ma ñëw ci plainte boobu. Mm. waaye amul leneen lu muy dem di ji lijjanti ji. Mm-hmm. que koo xamee ni moom daa jël dara. Mm-hmm. commentaire wu ci waaye def na ci ay reetaanam c'est son droit. Mm-hmm. li ma dul d'accord. mooy ce que l'autre a fait. Papito Kara muy soppi les unes des quotidiens def ci lu ko neex ba pare moomale ko benn quotidien. quand je vois Tribune au groupe des médias. ce sont des journalistes sérieux ñoo fa nag. di fa mm. ñu def seen i euh, il faut que ñu may ñu jox ko tuuti tuuti respect dans ce pays gis nga ni ngay toogee di débrouiller pour liggéey sa liggéey noonu la ñuy toogee di débrouiller wu liggéey suñu liggéey ki nekk ci journal bi pendant que yaa ngi tëdd di nelaw moom ma ngay nekk ci ay tirage ma ngi defar mm. ay une. di liggéey liggéeyam. Mm. nga xëy une ba mu dugaloon journaux yi dem. ñu dugal ko ci internet bi soppi une bi wax loo ko lu mu waxul def loo ko lu mu deful ba pare yow nga dem am ci say vues y a quelqu'un que j'ai entendu récemment je pense c'était hier xam lañuy ñan la ñuy gën a fay ñu dàq saaga ndax boo dàqee saaga ëpp ay vues YouTube followers ci lu mën a doon ñu lay fay li ñuy def nii ci émission bi nii peut-être li nga ci am ci ay ñu lay suivre mooy les fidèles mais gis na bu ñu saagante woon léegi nii boo nekkoon mille nit mooy ñëw ne ni xool euh, Sénégal set ña ngay saagante ci émission bi naa nga am nga am dix mille ci en l'espace de cinq minutes mm. ki def loolu di dugal ay unu jàmbur di ci di ci def ay doomu jàmbur yoo xam ne ni dañu am pap am yaay wala am jabar am doom wala am jëkkër am ay doom nga jël leen du n'importe quoi nga bind ko ci ñoom au nom de mm-hmm. pour te faire de la publicité mm-hmm. je suis pas sur le cas Ousmane Diagne la réaction du procureur je dirais la justice pour man dafa ëpp mais mais donte ni c'est-à-dire donte ni kenn àndul peut-être ak euh, li nga xamante ni moom lañ di moom lañ tuumal ni ñoom ñoo ko def <coughs> euh, seen avocat yi tamit ak euh, ñenn ñi ci askan bi jàpp ni peut-être waroon nañ la war a mun a avertir rek bàyyi la ñu dem kon kon ànd nga ci ñuy wax ni dañ la war a bàyyi ci nu mu gën a gaawee ñu dellu seen njaboot. mais a bàyyi. si mm-hmm. nu mu gën a gaawee parce que ça absolument à rien. Mm-hmm. d'autres personnes qu'on doit aller chercher. Mm-hmm. auto saisir bi procureur def. wuti leen dugal leen ci kaso bi ñi nekk di jël suñuy suuf di ko jaay sans mu am traçabilité ñii ñëw fekk baykat boo xamee ni toolam bu ndaw bi mu yore benn hectare nga foqate ko ci ay loxoom jaay ko dugal sa poche di ay maire di ay leneen ak leneen nañ dem lijjanti ñooñu ñi nga xamee ni tey ce sont ce qu'on appelle di bandits à col blanc qui font ce qu'ils veulent parce que ñu ngi nekk ci ginnaaw président Macky Sall wala première dame Marième Faye Sall wala benn ministre def lu leen neex te du mujj fenn nañ leen dem jëli ñaata nit lañ fi waxoon ci cour de répression de l'enrichissement illicite dañ leen war a déglu dañ leen war a sax jàpp dugal leen ci kaso bi mm. ñaata ñoo ci kenn lañ ci gën a siiwal de muy Karim Wade tous les autres pratiquement ñoom ñëpp ñi ci ëpp bokk dem nañu ñëw dend ak président ne ko bon finalement nañ bàyyi wax mm. am nañu euh, nañu lijjanti loolu mm. loolu moo gën a soxal askan wi que kii bind na lii. kii xale na am na cas yu ñu war a traité. nañ traité cas yi ba pare. cas yu gën a critiqué <laughs> <laughs> am na solo euh, conseil constitutionnel moom euh, valide na li nga xamante ni mooy euh, résultat provisoire yi nga xamante ni bureau de recensement des votes fësaloon na ko mu nekk sa naam li nga xamante ni bettul ñu bëri mais également beneen mbir tamit dafa daal di débouté recours bi nga xamante ni waa naataange introduire woon nañ ko sa gis-gis par rapport ak taxawaayu conséquence constitutionnel mais également ñii di waa l'intercoalition Yewwi Wallu ñu décidé ñoom également bañ a déposer ci li nga xamante ni ñoom jàpp nañ la foofee ko euh, bourrage d'urne euh, pour man ce sont des propos politiques politiciens nag attention ma la ñoom ñëpp yam kiif kiif six mooy neuf ñoom ñëpp yam ku ci nekk foo mën a xëcc pour mën a am euh, liñ naan opinion nationale ak opinion internationale da nga koy def gis na ay mbirum bourrage d'urne yore y avait des reporters dans cette zone là mm. comme ni mu amee mm. ñoom seen i représentants mm. mandataire représentant ou coalition ñoo xam ne da ngay am yow sa fichier ñu xam ne tant d'électeurs ñoo fi ne moom mu am Sénat tamit am. est-ce que tu vas dire que ñoom dañuy seetaan ay bourrage d'urne te bokkuñu ci benn parti politique yàgg organiser ay élections loolu pour man waxu politicien la woon li tax demuñu defi recours boobu. bu doon ils avaient des preuves palpables de tout ceci mais dinañ ko xeex parce que opposition bi ma gis depuis le début ñu xeex te lépp lu ñu xeex boo xoolee souvent dañ ci am ndam. Mm-hmm. donc jàpp naa ni bu doon dañ jàpp ni burage d'urne boobu effectivement am na même bu dee un poste de député ou deux de moins pour le, le, le la coalition au pouvoir doon nañ ko xeex. parce que ñoom nee nañ foofu am nañ fa ñaari député et que lu tax déposé ñu recours c'est parce que xam nañu déjà sept euh, sages yu nekk ca conseil constitutionnel euh, Macky Sall la ñu àndal donc perte de temps la. man nag dalal naa fi maître Tall ni ki dem ni ko euh, dans ce cas lu tax baleen leen conseil constitutionnel joxe dëgg ci li si seen. liste bu Dakar bi ngeen nangu ni conseil constitutionnel baax na. ça c'est la grande question <laughs> qu'une frange se pose. conseil constitutionnel sori le ministre de l'intérieur amul lu je ne le connais pas on s'est jamais vu ba ma organiser élection est-ce que dégg nga tey tey kenn opposition comme pouvoir ne ni Antoine Félix Abdoulaye Diome yaay bon nga defoo fi dara lu baax. Mm. déggoo ko fi de. ba ñu gagné ci élection municipale. Mm-hmm. déggoo benn yoon ñu les les élections ont été très mal organisées les résultats sont catastrophiques ne sont pas bons le ministre de l'intérieur est à la solde du régime c'est le fils de de Macky Sall ou le frère de Macky Sall déggoo ko fi ba tey jii nii ñu am quatre intercoalition Yewwi Wallu le ministre ba léegi déggoo ñu félicité ko mais déggoo kenn kaas ci moom. Mm. c'est valable pour le conseil constitutionnel. bu defee lu baax wala ñu jàpp ne ñu baax na ci ñoom doo dégg mukk ñu ne conseil constitutionnel. mais résultat ñoom yu ñu am ci ci ci ci ci législative bi jàpp ni personnellement. Euh,